asalaamaaleykum mbokk internet bi bpactu.com ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci indiwaatal leen seen yeneen xibaaru actu net tey nag mu nekk date boo xamante ni dafa important ci feuille de Tidiane surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk fële na lee ci tey ba ñeset mu nekk date bi nga xamante ni mooy marqué la naissance de Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye. loo xamante ni commencé woon na depuis année 80 moom la tey jii moo yëkkatiwaat bépp jullit yëkkatiwaat bépp taalibe Baay mu dem fële na le ci Taïba yal nañ ko yàgg di ko màggal jàll ci naq ak tiis marché yi nga xamante ni jamono yi ñoo ngi lakk rek ginnaaw ba Ocass lakkee marché Ross Béthio lakk marché Petersen nag tey jii moo jëlaat wàlla ñu dem foofu noonu fekk fa musiba boo xamante ni kenn mënu koo natt seen marché yi seen cantine yi lakk ba def doom ñoom mënuñu sax évaluer ñaata millions la ñu lakkale mais loolu nekk na loo xamante ni état bi mi ngi ciy jël prévention parce que nee na fas yéene na indiwaat protection bi nga xamante ni moo wax ci marché bi comme ça loolu bañati fee amati ba pare teg ci nee na après évaluation dina indemniser ñi nga xamante ni ñoom ñooy sinistré yi loolu doyul ki nga xamante ni moo di Wally Seck doomu Thione Ballago Seck boobu noonu nee na 20 pour cent yi nga xamante ni moom la jëlee ci anniversaire bi dina ko jox ñi nga xamante ni ñooy sinistre yi maanaam dimbaliwaat leen père de famille yooyu noonu ak mère de famille yi nga xamante ni ñoo jëloon seen xaalis investir ko ci ay marchandises mu lakk ba def doom ñun am naka rek diis Wally Seck nee na dina jël 20 pour cent ci recette am jàppale leen ko te yàlla rek tax. Bécaye Mbaye ginnaaw ba mu quitté 2STV ci diir bu néew ba créé benn propre koy woowee BMTV Bécaye Mbaye de dañoo jékki-jékki woon gisaat ko fële na le nga xamante ni moo di TFM coow li nag bari woon na trop ci réseaux sociaux yi nii naan Bécaye mbay dafa wax dafa wax mais mi ngi leen di xamal ni moom liggéeyul ak waa TFM maanaam ñi nga xamante ne ñoom la sekkal liggéey muy waa fa ñoom ñoo signé contrat ak waa TFM looloo waral mu obligé dem foofu noonu dafa def émission tey ñaax sénégalais yi ñu bàyyi dégg teel la ñu tam na actualité internationale ñu ngi xamal ni fële na la ci Irak tey lu toll ci 100 personnes ñoo ñàkk seen bakkan ci naufrage li ci ëpp nekk ay jigéen ak ay xale yoo xamante ne ay muumant lañu ci bés bi nga xamante ni moo di bésu 21 mars bi ñu doon féete fête des mères ñoom ñàkk nañ seen bakkan mu nekk naka rek boo xamante ni waa ñoo ngi koy dund ci jamono yi ñuy wax ak ba ki nga xamante ni moo di premier ministre bi di woyoo ci tuddu Adel Abdel Mahdi xeete na 3 jours de yoo xamante ni waa Irak dañ ko war a toog naka di leen jaale ñuy tëjee suñuy xibaar ci wàllum sport waa Real Madrid teg lu toll ci vingt 90 millions d'euros pour kan ki nga xamante ni moom moo di Sadio Mané pour mu ñëwaat defaraatal leen li nga xamante ni moo di Real parce que moom la ñu visé mais ñi xamante ni ñooy waa Liverpool nee nañu bu ñu leen joxul 100 millions du ñu bàyyi ki nga xamante ni moo di Sadio Mané pour mu mën a den rejoindre Real même si ko moom sax cachet bi ñu ko jox doy na ko kontaan na si. mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen jaajëfal te yem a yéen fii seen xibaar di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah si yeneen i xibaar yaa ngeen jëf